du ma làq sama doom di tëj doomu jàmbur ci loo xam nag dara wóoru ci loo xam ni dara wóoru ci dama bëgg ñu xam ni lii nga xam ni moo dal ci xale yooyu ndam la pour ñoom gis nga xamuñu sax li ñu def ñun ci biir dëkk bi la jóge jàkk joo dem jumaa joo dem daje boo dem fu nit ñi weesoo ñett nañ ñaanal Bamba Fall ak ña àndal nañ ñaanal Bamba Fall ak ña àndal jaraw lakk Bamba jaajëf Bamba waaw góor Bamba loolu ñii du lool lañ ci seeni woon tey Bamba turam law na lu tax turam law parce que Bamba dafa xeexul ci loo xam ni bopp yu fu boppam la il faut que nit ñi xam ni li sooke wax ji fondamentalement bu ko kenn ragal bu ko kenn daw mooy dañu nekk ci parti suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy maam sos ko amoon lu tax ñu sos ko xamoon lu tax ñu sos ko ma ni ku ko bëgg saax-saaxee duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg loolu la du leneen parti bi jotewuñu ci ay orientation doctrinale wala programmatique li woutale nit ñi moy ñi dañ ne dañuy topé ñun ñu ne duñu topé lo rek la du leneen ñi dañ ne dañuy topé ñun ñu ne duñu topé il faut que Sénégal xam lo lepp so déggé xalé yi naan PS des valeurs c'est parce que kallalon laloon ka sooke woon lii dafa xamone lutax mu def ko muy sengor dama ni 1948 ñëpp xam nañu lan mo mu dem soqi def BDS loolu mu taxoo taxoon mu def BDS nag ñun ci loolu lañ taxaw moo tax ku yaakaar ni dañuy génn ma ni du ñu génn du ñu génn fenn parce que ñun sengoor la ñu gëm li mu fi bàyyi lañ la topp yéenam lañu bëgg a mottali ci tànkam lañ topp ñoom Adja Aram ñoom Ahmed Diène Ngone wax na ko tey am nañu ker sa trop ku nekk yëngatu nga sa bàmmeel suñ ne parti bi ñu fi bàyyi woon nii la nekkee nii lay doxee am nañu kersa am nañu lu leen naqadi moo tax li xale yi di xeex bu leen ko def problème ci dëgg lañu nekk duñu ñu changer su ma déggee ñu naan ay jaasi waa xanaa jaasi yooyu dañ ko luxus parce que ñun quand même ñoo ngi woon ci salle boobu kan moo fa yoroon jaasi kan moo fa yoroon paaka kan moo fa yoroon ñun ñoo ngi ci biir kan lañ fa bëggoon rey mani de 9 heures ba bi alkaati yi kuñ fa bëggoon rey dee nga bu yàgg suñ fa bëggoon rey nit nit dee fa mais loo xam ni amul certificat médical amul repos médical kenn prouvé wul dara mais wax dëgg yàlla fu fa tentative d'assassinat nekk loolu moo jaaxal nit ñi